guy gi rek rek euh, waaw combat la combat boobu am solo la combat boobu rëy la combat boo xam ne mi ngi à l'horizon euh, gis nañu euh, actuellement Reug Reug mi ngi ci beneen compétition loolu di préparer combat am na solo gis nañ guy gi dafa lëlu actuellement di liggéey liggéeyam ndax xam ne li ko li koy fekk ci combat bi ndax avant mu koy jël rek tëbul jël ko xool na ko xoolaat ko xool ko ci côté yëpp parce que risque la ci boom risque la bu doy waar ci moom parce que li mu def ci carrière bëre dóor euh, Reug Reug defagu ko ci carrière bëre dóor waaye Reug Reug li ko may muy egg si fii mooy performance am kenn mënatu ko bañ dafa xëy rek nekk ca te xam ñu xam ne kii la daloon Yékini bi muy doogu ñëw dal na ko mënul taxaw day dem li daloon Tyson dal na ko mënul taxaw day dem li daloon mbër yooyu yëpp parce que ñooñu ñëpp euh, dañu ñëw rek bëre ñu de mba euh, euh, Yékini rangul dafa ñëw rek bëri grand combat Tyson dafa ñëw bëri grand combat Moustapha Guèye moo bëri combat spécial déclassé Bombardier gis nga deux combats trois Alaaji Ngeer ak kii la bëreel déclassé euh, kii sax def na def na def na ay combat presque ay dix combats rëg-rëg mais kenn mënatu koo teree laaj kenn moo tax mu mën a jël guy gi waaye combat la boo xam ne à l'horizon peut-être bu ñu ko gënee bu ñu ciy gënee dem dinañ gën a indi yeneen commentaire waaye daal loo ci mën a dégg daal waaw avantage bi mooy mi ngi compétir mi ngi découvrir yeneen yeneen public te loolu de ci joué loolu da ci joué mais nag guy gi ci xam aussi nelawul peut-être xëy na amul euh, chance compétition boobu te it contact amul ci écurie yi ndax feebar bi te kii mi ngi def ay contact xëy na foofu foofu avantage bi ci ci rëg-rëg lay nekk actuellement nii mais je pense que xëy na bu ñu leen jëlalee date moom mën na ko rattraper parce que tamit entraînement ay raccourci la parfois. déedéet xeebu ko xeebu ko ndax xam na combat boobu fi mu ko mën a yóbbu kon du ko jël du ko jël <laughs> xeebu ko waxin la waaw waxin la euh, xëy na stratégie am la mais xëy na bés bu ñu dajee bët bët xëy na wax ji fa lay génne fi ngay xam li tax mu jël ko mais xeebu ko waxinam la parce que euh, xam nga Reug Reug day mbër boo xam ne compétiteur la Reug Reug compétiteur la. Euh, xëy na stratégie la mu mu mu mu mu mu dóor ko loolu ba pare di def ay compétition mais xeebu ko xeeb guy gi moom erreur la ci moom te bu ko defee def erreur waaw guy gi guy gi kenn mënu koo sóor ci komba moom laa la wax mën na ñëwee nu ne parce que combat bi dafa bari enjeu ci moom Mor Fadam dem na da ko war rëbëreel et école de lutte bi moom moo ko révigoré ak lan victoire bu ko bu ko ubbee ak défaite mën na jur ay yu bari sax moo tax ñi ne ci ginnaaw tey rôle bi Mor Fadam doon joué la ñu war a joué ci moom jox ko moral gunge ko ci combat boobu parce que combat capital la risque bi ci moom la gën a féete moo tax. kon man El Hadj ay Mbaye maa ngi seetaan DK TV. man Malick Thiandoum maa ngi seetaan DK TV. oui euh, TV.